bienvenue sur la chaîne Mouhalim TV. Mouhalim TV est une chaîne d'information générale en temps réel. Pour plus d'informations, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'informations. salaamaaleykum chers internautes yéen ñi safoo chaîne bii di Mouhalim TV ginnaaw ba ñu leen nuyoo comme ni ñu ko daan defee chaque jour rek tey ñu ñëw euh, seet suñu benn gan bu mag a mag ñu koy woowee Pape Djibril Fall honorable député Pape Djibril Fall mu ñëw fii dëkk bi dëkk bu sell bii di Touba tey ñu ñëw ngeen amoon ak moom waxtaan ginnaaw bu ñu leen nuyoo Pape Djibril ñu bëggoon a xam lan moo waral teewaay bi ci dëkk bu sell bi di mm. la di leen bu baax euh, waa Mouhalim di di nuyu seen internautes yi yi nekk si biir réew mi ak si bitim réew ak kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk euh, chaîne bi nga xamante ni bu am solo la di dox dox bu am solo ñu gis tamit euh, mbir yu bari yoo xamante ni mu ngi fay jaar nekk lu am solo ñu gis tamit ni ñu ko dëppalee ak euh, wormay dëkk bi nga xamante ni fi lañ nekk di Touba te loolu nekk loo xamante ni lu am solo la média dama koy wax toujours lu am solo la loolu moo tax ki nga xamante ni moom mooy Sidi Lamine yal sunu borom dolli ko yërmande bi mu demee Caire jàng communication sociale ba pare bi mu ñëwee Sénégal dafa tijji directement média tudde ko Walfadjri communication sociale bi mu jàng mooy nit ñi depuis bi humanité amee ba tey depuis bi àdduna sosoo ba tey nit ñi faaw ñuy waxtaan faw ñuy jokkalante faw ñuy waxante loolu lu ama am solo la nekk loo xamante nii nag saa bu amatul rek lii am mooy réeroo fantasiroo ak jàppante mooy am boo gisee sunu borom sax bi mu jëlee décision yooyu nga xamante ni jël na ko ba noppi gis nga dafa mel ni dafay doon laaj malaayka yi seen avis ci maam Adama bi nga xamante ni bëggoon na ko wàcc ci kaw suuf gis nga ba mu ko waxee moom moo amee dogal bi su ko neexoon du leen du mel ni ñu leen di yëgal wala mu laaj leen waaye daf leen laaj ñooñu tamit jox ko seen avi mu jël ko en compte gis nga daal di suivre benn processus ba léegi nag ca la leen wax na leen euh, ki mu doon ak li mu doon tax nag moom mu mu mu ne leen xam naa loo xamante ni xamu leen ko waaye faw rek waxtaan di am faw jokkoo di am faw ñu am ay li ñuy wax ay instance de dialogue li ñuy wax ay espace de de de de de confiance média nag dafa nekk espace de confiance espace de confiance mooy lan mooy barab boo xamante ni képp ku jóg di fa dem wala képp ku ñuy jóg di ñëw ci yow yow da ngay da lay wóor yàlla ne da da ngay am yaqin ne kii dafa ñëw pour defar waaye ñëwul pour yàq kii dafa ñëw pour tasaare lu baax ak yiw waaye ñëwul pour tasaare safaan kii dafa ñëw pour gën ñoo dimbali ci ñaar te loolu mooy sunu sunu taxawaay ci kaw suuf mooy sunu identité d'abord ndax nit ki dafay ittewoo ni muy ittewoo lekk ak naan noonu lay yitte woo xam boppam ndax su xamul boppam du xam relation bi muy entretenir ak keneen donc xam sa bopp ni ni nit ki di soxlaa lekk ak naan noonu la yittewoo xam boppam waaw wax nañ ne sax euh, yaakaar naa xadisul si la mu wax ne man xarafa nafsuhu xarafa rabbahu ku xam sa bopp sax xam sa borom kon xam sa bopp c'est fondamental c'est vital nit ki loolu liggéey bu mag la donc média bi nan la ñu mën a dimbalee aujourd'hui à travers une communication ba ñu fexe ba ñi war a wax yépp di wax ba nit ki mën a xam moom mooy kan beneen bi nga xamante ni c'est important et c'est vital mooy euh, nga xamante ni c'est vital mooy le vivre ensemble wax naa identité léegi beneen bi mooy vivre ensemble mooy ni ñu war a jokkaloo ci sunu biir ni ñu war a àndee ba nga xamante ni lépp loo xamante ni song nañ ko dinañ ko mën a daan mooy li devise u Sénégal di wax ne un peuple un but une fois waaw nan la ñuy nan la ñuy nekkee benn askan boo xamante ni dinañu mën a am benn hadaf ba pare am ngëm-ngëm boo xamante ni dina mën a tax ñu atteindre loolu nga xamante ni moom mooy sunu objectif. loolu nag ku la wax ne yomb na daf lay nax liggéey bu rëy la laaj. loolu moo tax euh, borom dëkk bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lu nekk mu daj ko ci ngir bu ñu taxawee mën a xam suñu bopp ba nga xamante ni bu liggéey bi muy def ci ñun noppee fu mu demati fu ñu foo mën di demati yow yaay soppiwaate waaye kenn du la soppi parce que da ngay way deng ci li nga doon xam ki nga doon xam na it sunu borom dogal na ci yow li gën leneen lu baax feneen mën nga koo jël waaye leneen lu bon feneen it duñ la mën a influencer donc tu deviens in pas du tout influençable kenn du la mën a influencer ba jëlee la ci ki nga xamante ni moom nga doon donc loolu média bi loolu lu am solo la te loolu ñi nekk ndax média mooy médiateur waaw c'est des médiateurs sociaux moo tax ñuy wax ne média euh, le journaliste la ñuy wax ne wala le professionnel des média il est au centre mais il n'est pas le centre da nekk ci digg bi waaye du yow yaay digg bi du yow yaay ki nga xamante ni ya ya yow yaa war a di buur di bummi wala di defar di yàq wala di ki déedéet yow sa yitte mooy la distribution équitable de la parole mooy nan ngay def ba képp ku am lu képp ku am solo lu am solo lu mu war a wax mu fexe ba wax ko ngir mën a faj soxla yi donc loolu kii média yi la bon ci média laa jóge moo tax may bokk loolu ak suma mbokk yi di leen ci gërëm c'était pour vous remercier euh, ci liggéey bi nga xamante ni yéen a koy def sunu ñëw nag si dëkk bi euh, dañoo ñëwoon ci euh, màggalu koo xamante ni ci jàmbaar ci góor yàlla yi doon ànd ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul la muy Serigne Darou Assane Ndiaye euh, nga xamante ni li Cheikh Ahmadou Bamba wax ci moom doy na sëkk wax ne li ko nit di rawee ci yàlla coobare yàlla lay doon waaye du ak njàmbaar lépp lu njàmbaar di maye Serigne Darou Assane euh, dina ko am mën na koo am donc loolu euh, rek doy na comme témoignage bu waroon a tax nit fu mu nekk ci réew mi bu bés bi jotee nga ñëw bokk ak njabootam bés bi. ngir ñu baaxee la ci lenn ci dundam loo xamante ni di nga ko yóbbaale pour mu mën la dimbali ci ñaar yi ma waxoon ni toujours ma ne mooy les problématiques majeures mooy identité ak vivre ensemble ndax nit ki su soo xamee sa bopp ba pare ci ngay mën a jëflante ak nit ñi jëflante bu mucc ayib parce que ci nga leen di mën a jëriñ te doo leen lor. donc te loolu Serigne Touba liggéeyam yépp ci ñun mooy ñu nekk njëriñ loo xamante ni du ñu ànd ak lor donc loolu ça me semble extrêmement important donc loolu moo tax Serigne Darou Assane ñu ñëwoon ñu ci ndokkeel njabootam di ci ndokkeel mbokku taalibe yépp di ci ndokkeel euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir di ci ndokkeel ñi nga xamante ni aussi mooy njabootu boppam euh, di ñaan sunu borom yokku leeram tas ñu ci barkeem di yëgal ñëpp aussi rawatina ñi nga xamante ni euh, ay gëstukat lañ ne sëñ Darou Assane ku mat a gëstu la davantage ku mat xamle la boo demee ci minanu baax xadim li ci sëñ Mouhamadul Bachir wax rek ci moom doy na sëkk. ngir ñu xam ne euh, nit ku màgg la koo xamante ni marqué na époque am marqué na euh, ci ci wàllu xam-xam ci tasaare xam-xam ci sàkk lu baax ci wut lu baax ci wut ngërëmal yàlla ànd ci ak jëmm jooj nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala leeram woy di ñu du ñu du ñu du ñu du niital yoon wi nga xamante ni ci la ñuy jaar ci zahir ak ci baatin donc loolu moo ñu indi woon fii ñu profitoo ci nag daal di ziyaare mbokk yi euh, am fu bari foo xamante ni teew nañ fi ci dëkk bi di sant ci nit ñu tijjilee seen i bunt waaye tijjil ñu seeni i xol xam na it ñun tuubaa ni ma koy waxee toujours ay politique ak yi xew ni boolewuñu ci su suma mam biñ ma tuddee nga xamante ni moo jur sama woy jur bu góor keroog bi ñu wootee pour carrière Touba bi ndokk euh, ngir ngir jële fa xeer yooyu ñu waroon tabaxee jumaa ji suma maam bi ñu ma tuddee man nga xam moo ma yar def na fa ñetti weer yoo xam génnu fa ci ndigalu Chérif Assane Fall ndax moom moo nekkoon moo doon conduire liggéey boobu nettali na ma plusieurs fois bi leen fa Serigne Fallou Mbacké fekkee ci biir liggéey boobu kon ci laa juddu ci laa màgg loolu laa xam nekkuma di def ay opportunisme politique wala may def di situationnisme politique donc ñun yoonu murit pas-pas moo ñu ci boole yoonu murit dañ ciy juddu fekk suñuy jur nekk ci donc ay mandat ak ay élection ak conquête politique boolewuñu ak dëkk bi boolewuñu ak waa dëkk bi donc sunu man sama maam boobu ma lay wax tey jii bàmmi la ma ngi fii lañ ko denc ci armeeru baqiya yi lañ ko denc suma mam bu jigéen tamit ki jur suma woy jur fii lañ ko denc donc pour dire tout simplement que dëkk bi lépp loo xamante ni am nañ ci yéene bëgg nañ ko fi di ko fi dox di ko fi wax dañ koy dox di ko wax ngir ngërëmal Serigne Touba bi nga xamante ni lañ ci bëgg waaye du pour ay raisons politique wala politiciennes. waaw bu loolu weesoo gis nañ fan bi tàng na lool ci accident ñu gis ñaari accident yu fan yi méttee na ci ci réewum Sénégal ba mu waral ñu bari ñàkk seen bakkan ñu gis ne état bu ay mesures lu toll ci yoo xam ne jël na ko ngir euh, loolee bañ a amaat ci réew a xam ban jàng nga ci ak lan nga jàpp ni mooy cause accident yu bari yooyu moom xam nga ñoo daq jël mesure ci àdduna déjà en 2017 avec le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne jëloon nañu ay mesures parce que semaine boobu dafa nekkoon semaine bu tàng ci accident yi ñu jëloon dix mesures yoo xamante ni ñoo ngi ko tuddee woon sax presse banque tuddee woon les dix commandements euh, de du gouvernement pour régler la question des accidents mais accident yi du fi du du fi gaaw a jóg lu dul dafa am yu ko jiitu bi ko jiitu dafa mel ni tey jii dama lay jox benn exemple su màggal Touba jotee bu ñu màggalee ba ci suba gi xoolal liy daje ci nit ci dëkk bi. benn benn benn possibilité rek la am pour ñëpp ñibbi benn possibilité la am mooy oto ak tali loolu nattukaay la pour wane réew mi fi mu toll ci sous-développement parce que réew yi nga xamante ni yëpp dafa développé ci wàllu transport dañuy am plusieurs choix da ngay am TGV wala nga am train waaw train à grande vitesse wala nga am train yi yi nga xamante ni moom la ñu xam wala soit nga am tramway wala soit nga am nga am euh, beneen façon boo xamante ni avion wala leneen ak leneen waaye boo gisee ñun suñu dëkk yi da ngay gis ni ñu retardé ci développement ci côté boobu te damay jël benn exemple boo xam dina illustrer li nga xamante ni moo ñu dal mooy roi Dubaï dafa am bés dafa am jamono mu woo benn cabinet bu tudd McKinsey mu ne leen dama bëgg ngeen defal ma benn jàngat ci sunu euh, ci Dubaï nan lay def ba régler problème mu embouteillage bi bi bi cabinet bi defee étude bi. ne ko daal pour nga régler pour mu embouteillage il faut que nga def sept fois sept voies ci digg du Dubaï sept fois sept voies buur bi ne leen c'est très bien da astaghfirullah dañ ne ko dangay ngay def sept fois sept vois wala nga def tramway wala nga def TGV buur bi ne leen dinaa leen tontu après bi mu jëlee étudier kii bi ba ñu ñëw bi ñu ñëwee mu ne leen damay def ñett yépp tubaab yi ne ko mais loolu c'est pas possible soxla woo ko soxla woo def ñett yooyu boo defee sept fois sept voies rek tu tu auras réglé le problème des embouteillages réglé nga problème embouteillage mu ne leen liggéeyu ma tey damay liggéeyal ëllëg moo tax loolu mooy suñu différence dañuy wax ne le politicien se préoccupe de la prochaine élection l'homme d'État se préoccupe de la prochaine génération ñu ne politicien bi moom li ko yitteel mooy élection bi di ñëw waaye homme d'État wala femme d'État moom li ko yitteel mooy lan la fiy bàyyil ëllëg génération yii di ñëw donc loolu moo tax tey jii euh, jafe-jafe yooyu ñu koy am ci wàllu tali yi tali yi xat na oto yi jafe na titre de transport yi oto yi déjà nekkuñu aux normes titre de transport yi ni ñu koy amee muy permis de conduire man gis naa fi politiciens yoo xamante ni mais dañu nga leen di defal formation xëy jox leen cinquante permis wala cent permis te loolu ñëpp a ngi koy gis donc loolu légèreté la ci wàllu attribution yi nga xamante ni ñoo ngi koy jox ci titre de transport yi donc responsabilité à la chaîne la beneen bi nag bi nga xamante ni man moom a gën a naqari ci mesures yi nga xamante ni pour man du régler problème bi da koy déplacer mooy mesure yu sérieuse mënoo jël ñaari fan nga ne da ngeen a tëju pour génne ko pour régler loo xamante ni ñëpp a ko xam mesure yi du du bu ba ñu dajaloo noonu. amut lenn loo xamante ni mën nañ ko génne ci concertation bi loo xamante ni yow xamoo ko man xaw ma ko kenn xamu ko amul problème bi mooy fa jàngoro ji ne fa jàngoro ji ne moom la ñu mënul saafara moom la ñu bëggul saafara te loolu dafay commencer ci ñu amee ay infrastructure de qualité il faut des routes énormément de routes il faut que ñu defaraat trans le, le chemin de fer parce que transport de masse chemin de fer mooy def transport de masse ak transport de marchandise mais oto yi ñu am mënoo ci dugal nit ñi moo tax keroog bi ñu jëlee benn mesure boo xamante ni c'est une mesure boo xam kenn xamul ñu ne léegi porte bagage dañ koy dindi ñu ne c'est très bien mais porte bagage boo ko dindee kii tukki nu muy def bagage am c'est pas possible. donc moo tax am na mesure yoo xamante ni moo war a ñëw te il faut que ñu def davantage xaalis bu bari ci am ay tali am train. di indiwaat tramway bi loolu moo taxoon choix yi Macky Sall doon def ci TER bi ñu discuter woon ko ñu ne choix yi jàpp nañ ne sur vingt neuf kilomètres wala dix huit kilomètres nga def ci autant de milliards li ñu gënal mooy nga xotti diggante dakaar ak Tamba xotti diggante dakaar ak Kaolack diggante Dakar ak Touba diggante Dakar ak fii ba nga xamante ni dem beeg dikk bi dina gën a jàppandi gën a yomb tey jii soixante deux ans après ñun nangu nañ Tambacounda sori alors que Tamba soriwul. boo demee ci dëkk yu mag yi ci àdduna bi di nga gis ne lu gën a sori lool nit ki dañuy xëy dem foofu liggéey ñibbi war seen kër chaque jour waaye ñun nangu nañ mu sori parce que ba tey dem bi dafa métti ba tey dem bi dafa métti donc euh, yooyu daal jàpp naa ne suñu ci góorgóorloo def ci liggéey bi ñu ci war a def euh, wàññi tappale bi ak yaafus bi parce que yaafus aussi daf ci feeñ parce que gis nga bi ñu dajaloo ne dañuy dund en société c'était pour régler trois problèmes dama koy wax tout le temps république d'abord bu ñu nee république rek service publique moo tax service publique service publique mooy nan la ñuy def ba ñi nga xamante ni amuñu doole ci sunu biir ak ñi am doole saa bu ñu ittewoo jàng ku judd ci ñun jàng dañ ci réer nan la ñuy def ba loolu am nan la ñuy def ba ku judd ci ñun bu feebaree mën a faju nan la ñuy def ku ba ku judd ci ñun mën a am kaaraange santé sécurité ak éducation. lii moo tax ñu vivre en république mooy le service public de qualité te tey jii nattal service public bi ñu am tey jii quel est l'état du service public de la santé au Sénégal tey jii ñu bari am na lu leen di metti am nañ lu leen kii mais ñemewuñu dem hôpital parce que li ci war ci kii mënuloo ko ku am dara tey Sénégal doo dem ci hôpital public clinique ngay dem ku am dara tey Sénégal sa doom du jànge ci école publique école privée lay dem ku am dara ci Sénégal tey boo tabaxee sa kër ba pare waxuma la sax li ngay renforcer ci batiment bi pour sécurité nga xam xaalis bu bari lay nekk waaye waaye di nga fay vigile bay bëgg a dee pour pour sécurité donc beneen bi mooy la service public du transport transport service public la même état bu ko délégué daf ko war a encadrer moo tax état aussi warul lor. secteur privé boobu nga xamante ni dañuy ñëw ci transport ngir dunde lu ñu lew lu lu lew ñooñu aussi il faut que nga encadrer leen dimbali leen mais di contrôler service public bi nga leen dénk parce que état la waroon état jël ay doomu Sénégal yoo xam dañ cee bëgg a wut xaalis mu dénk leen ko mais mënu leen ko dénk parce que transporter ay nit du transporter ay mala te donte ay mala ngay transporter sax dafa am norme yoo xamante ni moom nga ko war a moom nga war a kii ak ay mesures sécuritaires transport dafa am mesure sécuritaire parce que ku la wax nag am na réew mu dul def accident waxu la dëkk réew yëpp ay am accident waaye ñun accident yi am fii loxo doomu aadama da cee taqrib soit ca kay soit ca ka ko bàyyi mu dem soit ca taliba na mu toll soit ca nangam soit ca nangam soit nangam donc yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamante ni il faut que ñu xool ko saytu ko defar ko moo gën ñu xëy ni jël ay 22 mesures yoo xamante ni dañ ciy dellu siwaat parce que euh, jàngoro ji fajuñu ko dañ ko déplacer rek waaw góom bi da nga koy faj ba mu wér waaye doo nekk di ko kii bay bayal noonu parce que day gën a métti waaw xam naa dañuy wàccee foofu sunu kàddu sax. daañu mm. euh, daaneel. Mm-hmm. ñu bàyyi la. Mm-hmm. Euh, sànni say kàddu ci université bi nga xam ni. Mm-hmm. Serigne Mountakha a indi euh, war ko inaugurer leen bi boobu dafa am solo keroog bi Serigne Mouhamadul Mountakha di ñuy def pose premier pierre bi dafa wax lu am solo dafa wax ne damaa bëgg ci kanam fii ak trois cent cinquante années sax la wax damaa bëgg bu tuddee imaam Malik imaam Shafi imaam Ahmad Ibnu Anbal. wala imam Abu Hanifa ñu am seen cheikh bu génne ci université bi kuñ leen di tëkkaleel ci wàllu xam-xam ñaari mbir feeñ vocation feeñ ci ambition feeñ te loolu nag ñun moom la ñu donn ndax euh, soxna jaar Jaara Buso keroog bi muy dem kër sëñ Mam Moor wax nañ ne wax na ne bu dul woon lii nga xamante ni suñu borom wax na ko ci alxuraan wax ne yonent bi salaatu wasalaam moom moo tëj wa mu ne kon fa mu jëm dina fa am ab yonent waaye gis nga li ko ci suñu borom defal ci ambition waaye gis nga ko boobu fa mu toll ci ay at ak ambition yi nga xamante ni moom la amoon Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul aussi bi mu jógee dafa wax ne dafa bëgg a nekk la serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dem sax ba nekk le serviteur privilégié asnal Khadim du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc loolu ambition la moo tax réew mi foog ñu am ambition moo tax it foog ñu am ambition jële Sénégal fii mu nekk ci wàllu paj foog ñu am ambition yu rëy parce que tey jii liy jóge Sénégal ci ay borom ñu am dara borom alal di dem di faju ji bitim réew kenn xamul ni mu toll te ñooñ bu ñu toogoon ci réew mi fajoo fi xaalis bi day desaat ci biir réew mi. wala soit sax ndax ñu ci bëri tey malheureusement dañuy dem faju ji foofu la ñuy génne àdduna te ku sañoon ci sa réew ngay génne àdduna donc il faut que ñu am ambition yu rëy sur le plan du transport. il faut que ñu am ambition yu lay sur le plan de l'éducation ambition boobu moom la sëñ Mountakha wane euh, ci pose premier pierre bi nga xam ñoo ngi ko doon def liggéey bi tamit daal di am benn doxalin boo xamante ni doxin boo xamante ni yéeme na trop mu nekk njàng mu rëy ndax Sénégal fii yaakaar naa université Amadou Mahtar Mbow ci ñaajo def na ay at yoo xamante ni. dara xeer sax mënuñu bañ tegee xeer wi lañu ci gëj a teg beneen pierre ba nga xamante dañ ko mujj résilier ci kiñ ko joxoon daal di xool nañ koo xamante ni moom lañ ko jox pour mu liggéey ko. loolu dafay wane ne ñun am nañu ay méthodes suffisantes yoo xamante ni mën nañ ci engagé de grands chantiers daal di koy defal loolu tamit taarix la duñ koy fàttali souvent sëñ Mouhamadou Moustapha njaareem bi ñuy defar raay bi bi ñuy jëlee raay bi dama koy fàttali tout le temps ne. jamais dans l'histoire du monde ba àdduna sosoo ba tey saa bu ñu daan defar raay pour transport de marchandises la wala transport de masse c'était la première fois dans l'histoire du monde ñu defar raay pour defar néegu yàlla raay bu ñu mës a defar ci kaw suuf transport de masse la woon transport de matière première wala transport de marchandise loolu moo tax tubaab bi bi ñu ko dañu raay bi dañu la jógee njaareem ñëw fii moom gisuloon pertinence bi parce que moom jàppoon na ne sax dinaa ko teg comme condition ngir projet bi bañ bañ a sotti léegi nag ñu defar ko dans ba pare leneen li nga xamante ni mat naa fàttali mooy dañ ko defar aussi dans un contexte de crise parce que bu ñu fàtte ne Serigne Ba ngi fi jógee en 1927 hmm, la crise des années trent ñëw en 1929 donc àdduna jafe trop moom nga dégg sëñ Moussa Ka di ko wax naan boo ñu joxee li ñu joxoon dootuñu def ni ñu defoon xanaa yëgoon ne yaru nañ ndax boobu crise bi métti na trop ci jamono bi loolu moo tax ba ci sunu sub tey ji si sunu biir. li ñu liñ ñu fi bàyyil même en temps de crise ñun waroon nañoo am dund gu mucc ayib bu fekkoon ne euh, yaru nañ maanaam ci wàllu euh, budget nan lañ koy gérer li ñu yàlla jox ci xéewal nan lañ koy toppatoowee waaw loolu la ñuy wax discipline budgétaire su fekkoon ne am nañ ko ak sincérité budgétaire donc loolu nekk lu am solo donc euh, ñu koy ci euh, gërëm bu baax Cheikh mun Mountakha ndax ñun ñëpp la ko defal di ñaan suñu borom li mu ci bëgg suñu borom defal ko ci lu kawe njortam euh, ndax loolu la borom dëkk bi ñaanoon ci Matlabul Fawzeyni suñu borom def fi jàngukaay boo xamante ni bu mag lay doon bu mucc ayib lay doon te loolu yaakaar nañ ne sunu borom dina ko ci defal lu kawe njortam di lancer waat beneen mes beneen. message aussi aux autorités de la République notamment à l'État ñu gën a taxawu sëriñ daara yi ndax li liñ ndaxte sëriñ daara bari na kuñ koy yóbbul koo xamante ni sax souvent ay way juram amatuñ ci moom pexe maanaam dem na ba tëleen huit amatuñ ci moom benn pexe yenn saa yi sax day tombeek école bii ñu am école publique bi ñu am dàq ko école ñu ne ko yow dàq nañ la école jur yi ne kii mënatuñ ci moom dara ñu jël ko yóbbul ko sëriñ daara bi donc ñooñu li ak li ñuy nekkee ndax doomu aadama dafa dafa dafa màgg trop compliqué trop complexe trop nga jël ko la nekk ca moom nga war ko dindi wala fu nekkul dara fu dara nekkul nga war fa def dara boole ko xamal ko ba pare yar ko kooku je pense que ne ñoom ce sont les grands serviteurs li ñuy rendre service aujourd'hui au Sénégal kenn xamul ni mu toll te loolu nag lu jiitu indépendance di am Sénégal Sénégal moo tax tubaab bi bi mu bëggee tas réew mi daara yi la doon wër di ko lakk waaw daara yi la doon wër di ko lakk parce que dane daara yi tant que ñoo ngi fi nekk réew mi du ma ko mën a moom looloo ko yóbbu ba ci école bu siiw boobu ngay dégg ci Pire école boobu tubaab bi daf ko lakk en 1926 école boobu ñoo ngi ko créé en 1603 par euh, Xaali Amar Fall moo ko créé ñu lakk ko tey jii boo fa demee bu ñu la gasalee mën nañ la génneel doom bi yaa ngi dégg donc noonu la ñu xëy lakk ko ñu ne école bi mooy génne les plus subversifs maanaam seetlu nañ ne daara yi ku ci génn kenn du la mën a moom te boobu ñoom ñoo ngi ci ay pexe bëgg a taxawal seen école taxawal lekkool des fils de chef jóge ci di taxawal yeneen école yoo xamante ni bëgg nañ cee am ñu leen yoreel seen canton yi ngir mën a wéyal seen liggéey bi ci beneen forme loolu moo tax xeex yàgg na fi Sénégal yàgg naa am ñu bëgg réew mi ñu ko gëm donc ñoom ñëpp euh, nekk ay jàmbaar yoo xamante ni tey du ñu ko jéggaani fenn tey jii ñu bëree ngi tudd Patrice Lumumba ñu bëree ngi tudd Thomas Sankara waaye man tudd Thierno Souleymane Bal daf may gënal tudd Cheikh Abdoul Khadir Kane daf may gënal tudd Xaali Omar Fall daf may gënal tudd Cheikh Ahmadou Bamba daf may gënal tudd Seydi Hadji Malick daf may gënal tudd Maba Diakhou Ba daf may gënal tudd Cheikh Moussa Camara daf may gënal ñoo ñooñu ci laay gën a gis sama bopp te ñoo may gën a jege ma respecte seen liggéey yëkkati ko màggal ko li ñuy daj ci wane Thomas Sankara ak wane Patrice Lumumba suñ ko dajoon ci ñi xale yëpp tey ji am nañ ay modèles yoo xamante ni yu leen jege lañ nekk démb rek Cheikh Amadou Rafahi moo ngi koy wax ci ci xutbaam bi di tudd ay bàjjanam yu nekkoon ci dëkk bi ay soxna muslimatu ay soxna mu'minatu ñu nga xamante ni si leadership féminin liñ ci def kenn xamul ni mu toll mais duñ ko waxtaane moo tax buñ ko wul rek ay Joséphine Baker la ñuy dem jëli ay ay ay Simone de Beauvoir la ñuy dem jëli ay Margaret Thatcher la ñuy dem jëli alors que ay Elizabeth reine Elizabeth la ñuy jëli alors que am nga ci ñoo xamante ni ñoo la gën a jege donc liggéey boobu dañ ko war a def bu baax génne ko loolu mooy sunu patrimoine immatériel culturel bi nga xamante ni moo war a gunge xale bi ngir mu xam boppam xale du lekk ak naan rek du mala boo yor waaw da koy da koy da nga dookul ko mu xam boppam encore une fois parce que bu ma xamee boppam ci lay am li ñuy wax la culture de l'altérité ci lay mën a entretenir le meilleur rapport avec l'autre te loolu dafa nekk lu xaw a soxe te loolu la ñu sëñ Muntaxa di dimbalee ndax le savoir il anoblit xam-xam day day dajji jéng xam-xam da lay da lay da lay libéré Ah, xam-xam day tax nga xam sa bopp képp kuy tabax école yaa ngi dimbali nit ñi kii sax dafa waxoon Molière dafa waxoon ne ouvrez ouvrez des écoles vous fermerez les prisons ouvrez des écoles vous fermerez les prisons man nag dama ciy dolli ne ko mais quel type d'école lay wax moom ban école lay wax waaw leen di gërëm bu baax di leen sant. Mouhalim TV est une chaîne d'information générale en temps réel. Pour plus d'informations, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'informations.